détaillé professeur Moussa di jàngalekat ca université Gaston Berger daat wax ne ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ay erreur yoo xamante ni ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar moom professeur Moussa Diaw nee ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ay parti yoo xam ne kenn structuré ko te nag am na ay leaders yoo xam ne maanaam du ay leaders yoo xam ne yu légitime lañ ba tey ci biir journal bi moom professeur daat wax ne lii nga buy jeex Momar Diongo di analyste politique di journaliste daan nay wax ci frustration bi nga xam ne moo nar a am ci biir Benno Bokk Yaakaar ak na conséquences yi nga xam ne moo ciy tukkee Mamadou Sy Albert di analyste politique daan wax ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmale soo muy tuule APR ci boppam moo nar a explosé moo nar a xar ñaar yéen a gi di wax ci élection locale yi ba tey daan wax ne règlement de compte yi jamono ji ñu soham Wardini la ñuy jàppale ba pare nag ñoom ñoo ngi yuuxoo di wax ne lii nga xamante ni moo xew maanaam complot la ak ay manipulation yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na ndindi ca département ba jur Diourbel foofe nag APR daan na fay xar ñaar ndax Makhtar Sylla mi nga xamante ni maanaam moo nekkoon coordonnateur bu a APR ci commune bu ndindi daan nay démissionné ci APR ba pare dem na ko fekk Yewwi Askan Wi Cheikh Ba ca diwaanu Médina moom la ñu jiital yéen kaay gi di xëy dañu xibaar naan ñu ñu bare bari jàpp nañu ne Ousmane Sonko candidat lay nekk sa diwaanu Ziguinchor journal bi nee na déedéet Ousmane Sonko nekkul candidat ci commune bu Ziguinchor nekkul timit candidat ci département bu Ziguinchor yéen kaay gi nee na Aïda Mbodj moom tim nekkul candidat ci commune bu Bambey nekkul timit candidat ci conseil départemental bu Bambey yéen kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu duel maanaam jàmmarloo bi am diggante Soham Wardini ak Barthélémy Dias maanaam Khalifa Sall jamono ji nam say doxee dara leeru ci clair obscur Khalifa la fare yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaar naan ñu Amadou Ba mi nga xam ne moom la ñu nommé tabb ko mu nekk coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolee nag sunu neexee ñu jàpp ne Macky Sall ci diiwaanu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr lay jiitala ba tey ci journal bi ci xëlim ak Assane Samba nee na Amadou Ba daal mën nañu koo jàppee a premier ministre politique yéene kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Amadou Ba daat nay wax ne coalition Benno Bokk Yaakaar munu ñoo xaajaloo ba pare def ay liste parallèle ba pare xalaat a gagné loolee munta nekk Amadou Ba a na coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am loo xam ne dafa war a leer ci seen boppo bu ñu xàjjalikoo daal ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar na leer ne dina bëri ay gox yoo xam ne dañu koy ñàkk yéen a kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naa ñu Amadou Ba mi nga xam ne Macky Sall ñoo dina ko teg ko ci wetam ak Abdoulaye Daouda Diallo ñaari ñoo xamante ni maanaam ay adversaires yu mag a mag lañ ñu leer nañ ñoo wër Macky Sall yéen a kaay gi de la Quotidien xëy ci ville bu Ndakaaru nee na Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ba léegi suspense bi ma ngi wëy yéen a kaay gi nee na ca diwaanu ko Kolda foofe nag ca département ba Moussa Balde la fa Macky Sall bàyyiwaat ca commune ba Macky Sall daa dafay bàyyi Abdoulaye Bibi Balde yéene kaay gi nee na ñaari Balde yi la ñu nag yóbbu ca diwaanu Kolda ba tey ci biir journal bi nee na Mame Boye Diao mi nga xam ne moo jiite impôt domaine moom dañu koo jàppe yéene kaay gi délibération xëy ñu yóbbu sa diwaanu Ziguinchor nee na nag Doudou Ka Doudou Ka ñi nga xam ne ñooy ay farandooma ni ki démb nag génn nañu janoo ak taskatu xabaar yi ñoom nag dañoo tuumal Macky Sall wàllum trahison wàllum wor ñi nga xam ne ay jegeñaale Doudou dañoo jàpp ne Macky Sall dafa war Doudou Ka problème yaa ngay démarré yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaara naan ñu Abdoulaye Balde Macky Sall daf koo sacrifié Mame Boye Diao Macky Sall daf koo sacrifié Doudou Ka Macky Sall daf ko sacrifié yéen kaay gi di enquête Abdoulaye Balde moom nag nee na daal dina dem ci yi dina jàmmarloo yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaara naan ñu Assome Diatta mi nga xam ne nee na candidat la ca diwaanu Kër Massar tax na nag Benno Bokk Yaakaar Kër Massar pëcc xoo gaa nga mel ni tulleeg male yéen kaay gi di Vox Populi xëy xëy dañuy xibaar naan ñu nag lu jëm ci wàllum nag ville de Dakar ci na coalition wàllu Sénégal ana kan mooy nekk seen candidat ci Dakar journal bi nee na est-ce que du Abdoulaye Wade wàllu Sénégal est du Abdoulaye Wade la ñuy làq bëgg ko samp mu nekk seen candidat ci diiwaanu Dakar journal bi ne na nag loolee bu amee daal maanaam wàllum politique bi ci boppam léppay sopparñi ko te nag Abdoulaye Wade yàggatul dara dina ñëw ci diiwaanu Dakar yéen a kaay gi yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Macky Sall nag ma ngi baatare li nga xam ne mooy carte gi Macky Sall ma ngi baatare carte gi journal bi de la Tribune ak Rewmi Quotidien bàyyi mbirum politique nag ndax yàlla wax ci conseil des ministres bekk jëm ci wàllum location bu seer bi nga xam ne jéggi na dayoo loole nag njiit réew mi di président Macky Sall daan nay sàkk ñu andi si ak jubbanti ci ni mu gën a gaawee yéen gi di Stades xëy diñu xibaar naan ñu FC Barcelone jamono ci ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu mag a mag moo tax seen entraîneur ba Néma Coman daan nañ koy dàq yéen a kaay gi di Stades nee na Liverpool jamono ji ñoom Sadio Mané ñoo ngi def loo xam ne nag la ñu defoon 2020 daal moom la ñu dooraat jamono ji ndax